أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام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 bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi din eh, ñu ngi nuyu waa réew mi yëpp di jël suñu nuyoo di ko tàmbalee ci xalifa généraux yi ci Sénégal yëpp di ko tàmbalee ci suñu sëriñ sëriñ Muntaxa Mbàkke di ñaan yàlla guddal fanam may ko ak wér ba naan yi mu bëgg a liggéey sëriñ Tuubaa mu def ko ñu nuyu njabootu sëriñ Jéeri Wadaan gi yëpp ci bopp bi muy sëñ Maxtaar Sougou yal ko yàlla sàmm te aar ko te guddal fanam ak mbooleem njabootu sëñ Jéeri gi yëpp ñu topp ci moom am na sëñ Bamba Sougou ñu suñu wayjur ak sëñ Mama Sougou mi nga xam ne kenn la ci kër sëñ Ahmad Tasrif ñu ànd liggéey bi ñu def Ahmad Tasrif Sougou bu sëñ Mama sëriñ Saalibu Sougou moom sëñ Bamba ak eh, kenn ci ñoom seen njaboot di sëriñ Mouhamad Sougou nga ñëw fii nag moo doon jàng alxuraan di waxtaan ak ñun ci bis boo xam ne feet la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moom moo ko feetu te bu ñu koy feetu ñu ngi ko defee ci Madina ci gàddaay ci deuxième année ci gàddaay dañ ko tàmbalee feetu ndax yonent saa sallam amoon na yeneen feet yu nit ñi doon julli doon ko fonk jamonoy jaahiliya moom yonent saa sallam bi mu ñëwee Madina ci deuxième année ba la sàkkal jullit ñi ñaari feet muy aydul fitri ak aydul adha muy feetu korite ak feetu tabaski mu nekk feet goo xam ne dafa am ay dimension dimension jaamu yàlla waaye am dimension sociale ak solidarité yooyu moom moo ci nekk tey nag bi ñuy jublu muy feetu tabaski wax nañ leen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ko tàmbalee bi mu ñëwee Madina ci deuxième année ci gàddaayam mu nekk seet goo xamee ne ab jullit fu mu nekk ci àddina bi rek daf koy def lii nga xam moo nekk spécial ci fête bi yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem daf ko def muy fête boo xam ne fu ab jullit nekk rek da koo mën a def waaye mu nekk fête boo xamee du benn fan du ñaari fan waaye ñett fan la ñu koy tuddee ayyaamu tashriq looloo tax mu nekk seet boo xam ne dañu digle képp ku ko man nga rey ci ab gàtt muy xar wala bëy wala nag wala giléem ci ñett fan yi bis boo ko ci mënee rek nga def ko yemaloo ko ci góor waaye ci góor ak ci jigéen xale sax bu ko manee war na koo mën a def def gi nekk sunna ci ñun mazhabu maliki kon tabaski jaamu yàlla la boo xamee ne dafa lëkkaloog jaamu yàlla ci tuur deret jaamu yàlla ci tudd yàlla ci zikr bi yonent bi saa sallam digle nañ koy wax muy allahu akbar allahu akbar allahu akbar wala ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walilahi hamd ci tudd yàlla boobu ñu sàkk jullit bi mu koy def ñett ñetti fan yëpp mu tàmbalee ci bu jullee tisbaar ci bis bu njëkk bi ci bisu tabaski bi ba ca ñetteel fan ba mu koy def ci madhabu maliki loolu lañu ñu digle donc kon mu nekk boo xam ne bëgg nañ ab jullit yaatal ci ak njabootam nañ ko miine ci senegal yaatal ci sa njaboot ubbiku ci ñoom na ko daan defee ci bis yooyu rawat na ci bis bii koo xam ne yaa ngi seeti mbokki jullit yi dëkkandoo yi mm-hmm. boo gisee gàtt yi ñu digle ku ko rey mm-hmm. dañoo bëgg nga jaamu ci yàlla ci distribuer ko seddale ko sa bopp ak say bokk jokk ci ak bokk mm-hmm. bu ko defee gàtt bi na muy mel yépp ñuy waxtaan ci diina ci fan yi wax nañ ci bu baax a baax boo amee xar mu góor boo ko amul xar mu jigéen bayu góor boo ko amul bayu jigéen nag boo ko amul nagu jigéen soo ko amul jiléem bu dee ñu nekk màkk nag moom spécial mu nekk feet boo xam ne euh, fii ci Sénégal dañ koy dundal bu baax a baax ku mel ne suñu yaakaar Maulana Serigne waa Wadane nekkoon na fête boo xam ne dañaan rassembler ay taalibeem fu ñu mën a nekk ci Sénégal dañ daan jóge foofu ñu julli see Wadane ci moom suñu ñëwee wax dëgg yàlla su dajalee ñëpp ci penc mi ñëpp dajaloo ci bayal mu ñëw jiite julli def xutba waaye du yem ci loolu muy jàng ay ñaan bokk na ci ñaan yi ñu doon jàng ko samay wa ci ñeenti coin yëpp mu ñu taxaw ci mu jàng ay taalibeem ñu digle ko jàng ko ñeenti yoon daanañ wax ne di gàtt nga képp kuñ ko defal la nga fekke dee du yem ci loolu amoon na yet aw jàkka boo xam ne daf koy jël rëdd ko nit ñi bu ko defee rëdd yi woowu dañ daan def yaa samadu mu rëddi ko mbooloo mi yëpp suñu paree ñu gas benn pax bu mag jàng ay saar ci alxuraanul karim tifli ko ñaan ci yàlla nawet yi baax réew mi am naataange nit ñi mucc gudd fan loolu ci jàngaleenu suñu yaakaar sëriñ Jéeri Wadaan ci feet yu mel nii ci la bokk mu mel ne kon jullit ñi feet yi ñu bokk ñoom ñëpp ba nekk asi ba nekk Afrique ak ba nekk Europe mooy ñaari feet la muy feetu korite mm-hmm. ak feetu tabaski wax naa ne feetu tabaski du benn fan du ñaari fan waaye ñetti fan la te feetu tabaski dafay mel ni ki ni sax ci ñun ñu ngi ndokkeel jaaj ya nekk arafa tey war a taxaw arafa ñoom seen feet sax tàmbali la mm-hmm. am na ñoo xamee ne tudd nañ ko ay tur yu bari ci lislaam waaye ayib mooy loo xamee ne chaque année ñëpp koy def aduxa nag moom mooy ab rendi hmm. maanaam kon iidul adha mooy loo xam ne dañ koy def année bu jot hmm. mu ànd ak nag rey ab gàtt hmm. wala rey nag wala rey giléem bu dee ña nekk ci aj ga ñoom la ñu haddi kon loolu ci tur yi foofu la jógee ñu ngi ko tàmbalee def ci jamono yonent saa sallam bi mu demee Madina ci deuxième année bi kon boobu lañ koy def mu nekk feet boo xam ne wax dëgg yàlla feetu xale yi la daanaka ndax kenn ku nekk gis nga xale yi kenn ku ne da ciy sol yére bu bees nga gis ne fenn la boo xam ne tamit dafa am dimension sociale hmm. nit ñi dañ ciy jéggalante ñuy ñaan suñu autorité yi hmm. ñu nekk ci prison yi ñu ci bari ñu woyofal leen peine hmm. yi ñu leen tegoon surtout ñu nga xam dañoo def ay njuumte loolu ñu ngi koy ñaan en tant que fête boo xamee ne ñoom ni ñu koy baaxoo di koy def te di ndokkeel autorité yi yàlla may leen ak taxaw ndax kat in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdaamakum yàlla nee na suñu nekkee ci lim ñu digal la mu warloo ak ñun dana ko def kon ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoo tëdd ci hôpitaux yi ñi nekk ci prison yi ñi nga xam ne si dañoo am ay jaaxle ñu solidarité bu baax a baax dañu jàppale leen dimbali leen masawu leen ci bis bu mel nii ñuy wax ne nag euh, am nañ ay contexte yoo xamee ne réew mi toll na ci mm-hmm. ci wàllu euh, économique mm-hmm. ak ci wàllu politique mm-hmm. ñuy ñaan réew mi ñëpp joxante loxo xam ne fii ñu toll réew mi dafa mel ne que dañoo nekk ci benn avion boo xam ne ñun ñëpp dañoo yëg ci avion bi jox benn waaye muy conduire avion pilote bi avion bi nag décollé war naa def cinq heures de temps te une de temps bu ne at la ci kaw jaww ji su doo wàcc kon ñi nekk ci avion bi ñëpp lañ leen war a ñaan mooy mu teer jàmm ak salaam kon ñi ngi ñaan autorité yi na avion bi wàcc fa Sénégalais yi bëgg mu wàcc ñu leen di ñaaxaat tamit bu baax a baax fàttaliwaat leen bu baax a baax li askan wi bëgg ba tax ñoom ñu demandé laaj nañ leen jox ñu yor réew mi ñu jox leen ko ñu leen ko joxee nag kon am nañ ci ñoom yaakaar te daanaka nag koo gis ci réew mi rek bokk na ci ñi nga xam ne participé na ci nga ñaay lool ñun ñii muy ànd ak sëñ Ahmadou mi yu demee noonu gis ngeen ñu ay manifestation yoo xam ne dem nañ ci ba Mbàkke Bawol dem nañ ci def ci ay conférence yoo xam ne jël nañ suñu xaaj di ko def concert casserole yi ñu doon def am nañ ay vidéo yoo xam ne mi ngi daw ci internet bi malgré ay sëñ daara lañ ay nit yi diina lañ participer nañ ci parce que dañu yaakaar ne hmm. euh, dafa nekk rôle boo xamee ne réew mi moo ko soxla. macha allah donte ñi fi nekkoon. ŋañuñ leen waaye yaakaar nañ ne. deuxième mandat moom ku ko am da war a dem. ñu indiwaat leneen. macha kon donc loolu tamit. Euh, message la boo xam ne dañ koy jàllale bu baax. lu am solo am na li nga leeral ci bi am na mm-hmm. mm-hmm. euh, gis nañ euh, ay bëri bëri pétrole yu yu yees Euh, mu nekk ay ressources matérielles yoo xam suñu gaal Sénégal am na ko ci wàllum koom-koom. Mhm. waaye sëriñ dañuy seetlu ne euh, réew yu bëri bu ko amee li wax la malédiction du pétrole mhm. lu ci ëpp daal yeneen réew euh, yow loolu jot a ci Sénégal ban jàngat nga ci ban message ngay lancer président bi ak askan bi ak noonu lañ ko war a doxalee ba ñëpp gis ci seen bopp. bi ci njëkk. Mhm. muy ñuy ndokkeel ne autorités yu bees yi ci loolu. ñu commencé ko depuis Senghor wàcc ci Abdou Diouf ñëw ci Abdoulaye Wade ñëw ci président Macky Sall ñoom ñu tàmbali exploitation bi ci ñoom kon loolu ñu ngi leen koy ndokkee xam loolu seen sens la ñu xam ne nag euh, ñi nga wax ay euh, ay réew yu mel ne Libye noonu nga mën a wax réew mel ne Qatar donc Abu Dhabi ak yeneen réew yoo xam ne am nañ pétrole te exploité nañ ko bu baax a baax mooy booy xool seen train de vie seen i askan infrastructure seen wàllu santé seen wàllu éducation ak seen wàllu transport dem beeg dikk bi wax dëgg yàlla gis nañ seen bopp bu baax a baax kon àddina moom amul leen loo xamee ne yaa ko fi def kon lu simple la mooy xoolal ñi lay jiitu nga xool format yi ñu am nga xool bi ci gën a méngoo ak yow nga def ko boo ko defee rek dafay daal di yomb te mu ànd ak transparence hmm. ndax tamit askan wi am nañ ay priorité yu mag a mag. war a dafa war a nekk loo xam ne ñëpp ko war a xam ñëpp dañ leen cee war a associé kilifa diine yi ñi nga xam ne si ne ay notable lañ. Mm-hmm. les politiciens yi. Mm-hmm. parti au pouvoir. Mm-hmm. parti yi nga xam ne opposition bi. ñëpp dañoo war a am commission. boo xamante boo xam ne foofu lañ ñuy xalaatee. di saytu plus que assemblée bi ñëw na. document yëpp di jaar ci ensemble bu ko defee contrat yëpp ñu leeralal ko askan bi mm-hmm. loolu yaakaar naa su amee mm-hmm. euh, force étrangers yi mm-hmm. duñ am doole wañ seen loxo ndax population bi dañ nekk derrière les autorités te euh, popularité bi bu ñu demee ci derrière ak euh, ñi nga xam ñoo ñu jiite rek bu boobaa kenn du leen mën a fakastal waaye suñu jaaru ci yoon woow jaar ci yeneen yoon boobaa danañ wéet te bu boobaa danañ bëgg ku leen jàppale te boobaa kooku danañ leen teg ay conditions yoo xam ne ñoom duñ ko mën a accepter wala buñ ko accepter askan wi du leen accepter kon dafa war a am maanaam pont boo xam ne dafay dox ci diggante askan wi mm. ak autorité yi mu am transparence aussi accord yëpp ñu teg ko ci yoon bu ko defee tamit ñu bàyyi xel ay intérêt yoo xam ne am na ñu ko am ci ñun mm. ay étranger mm. ñu te ñu am ci ay ñoom ay intérêt bu ko defee loolu nag dañuy nangu ne àddina bi dañu nekk ci mondialisation mondialisation boobu nag kenn mënta tëju sa bopp mm-hmm. nit ku nekk am na loo mën a apporter waaye moom am na lu mu mën a apporter kon tamit populisme mm-hmm. wala yooyu tamit mm-hmm. ñu bàyyi xel ci yooyu na discours yooyu mën naa bañ a am solo li am solo mooy ngay wax sa askan li baax ci ñoom ndax njiit nekkul na askan wi mooy jiitu nga topp ci waaye yow njiit yi yow laa war a jiitu leel askan ñu topp ci yow nañ nañ ko waajal bu baax te feetu ko feet bu baax te moytu nag yàpp di am garis bu baax a baax ci seen wàllu wér-gu-yaram ndax tension yeeg maladie yooyu bari na diglu tegtali docteur yi ci wàllu wér-gu-yaram ñu def ko bu baax aussi spiritualité bi dañ ñu fonkaale ko xale yi buñ leen di yóbbu ñu fàttali leen histoire bi mm. diggante Seydina Ibrahim mm. ak doomam li tax l'islam ñëw ci jàngal lool xale yi mm-hmm. parce que feetu xale yi la mm-hmm. feetu xale yi la loolu tamit ñu si bàyyiwaat xel bu baax a baax mm-hmm. ñëpp ñuy ndokkee nag suñu làmp faal nga xam ne rajo la boo xam ne yaakaral na jàngale na jàngale Sëriñ bu baax jàngale lislaam te mooy jàngale Sëriñ Tuubaa wax dëgg yàlla ñuy nuyu yow mi ko jël si di la sant bu baax di nuyu kilifa ya ca kaw Ibrahima Guèye ñoom ñëpp rek waaw wax dëgg yàlla di sant suñu Ahmad Tafsir mi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ seen diggante ak moom. wasalaamaaleykum wa rahmatullah